xam sa démb xam xam sa démb xam sa sa démb xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru senegal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp maandag yéen ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund suñu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal suñu ëllëg. wolof ñun ñooy taarix. xam sa démb xam sa tey di waxtaanee doomu Afrique bu am solo. boo xam ne jàngalekat yu bari juum nañ ci moom ndax da ngay faral di dégg. ñu ne xamul Afrique te ba muy ñëw ca la dee ca avion bi daanu woon. loola nag lu jar yi ndax kii ñuy waxtaane tey mooy David Diop turam dëgg nag mooy David Léon si Diop mbaa ñu naan David Mandessi Léon Diop David si Léon Diop moomu ñuy waxtaane tey ma nga juddoo ca France ca Bordeaux juróom-ñeenti fan weeru juillet atum 1927 kon ndayam Cameroun la soqi ko tuddoon Maria Mandessi Bell baayam moom moo doon doomi Sénégal te tuddoon Mamadou Yande Diop liñ mën a jàpp nag mooy moom ngoneem tout tànkam am na ci lool ca Cameroun ca Douala la ko defee. loola nag baayam moo fa newoon di liggéey ca otaraay di semaine de fer. kon mën nañoo jàpp ne David Diop ci boppam doomi Afrique la ju màggee Afrique te xam Afrique David Diop moomu nag mën nañoo jàpp ne ñaara ngi nii war nañ ko fàttaliku ne bi mu amee ñeenti at ca la ñëwaat dakaar dugg nag ca daaray tuut tànk ya ñu tuddee ko jardin d'enfants ba nekk ca plateau ba mu fa jógee mu dem école élémentaire ak petit lycée loola nag nañ ci bàyyi xel kon 1935 David fala fa la addunaam wëlbati ko ndax ca la baayam génnee adduna seen ndey nag daal di ànd ak ñoom juróom benni doomam yóbbu leen ca France dëkk bu ñuy wax niim ñetti at gannaaw ba seen waajur génne àdduna di 1938 kon ci tuut tànkam David Diop moomu nga xam ne dafa ne woon kuy wopp rek yaramam dafa neexul woon mu xiibanoon yàggoon na di dem hôpital di fa yàgg lool waaye 1940 1940 nag ca lañ ko opéré opération yu bëri ya ca noona David Diop bu wéetee rek day toog di bind mbind mooma nag ca ba muy nekk ca école yu dugg doomu ya ca la ko tàmbali woon 1943 ca la njabootug Jóob googu dem Paris dëkk ca gox ko xaan ya mu nekk nag di jàng ca lycée bi nga xam ne moo doon Marcellin Berthelot de Saint-Maur des Fossés David Diop moom ko ko doon jàngal latin ak grec te doonoon njaatigeem te jëloon ko doomoo ko mooy Léopold Sédar Senghor 1944 nag ca la def candidat libre bac xaaj bu njëkk bi te booba ma nga ca classe su seconde waaye ba mu demee ba terminal Louis le Grand ca école booba ca la am bagam bu mat sëkk David Diop dem ca université ba ca faculté ba nga xam ne ca la ñuy defee science ca foofa ñu naan al au vin di def nag li ñu tuddee physique ak chimie ak biologie maanaam di jàngu dundaafon yi ak xam-xamu lépp lu yëngu David Diop moomu nag ma nga doon waajal ngir dugg ci école fajkat yi dafa métti woon ci moom nag njàng mooma ndax xëtër bi da ko sonaloon te ñaari at toog na ko di dem hôpital ñu ko fay tëj mu fay tëdd waaye 1947 bi nga xamee ne revue bii di présence africaine juddu na nga xam ne képp koo xam ne nit ku ñuul nga kuy xalaat bu la neexee nga bind ci ah gorom bii nag nga xam ne mooy Alioune Diop te moomoon ko moo ko ubbil bunt ne ko sa taalif yi mën nga ko cee génne looloo tax ba nu génnee ñaareel ba rek muy janvier 1948 ca la àdduna gisee ñetti taalif yoo xam ne moom moo leen bind le temps des martyrs celui qui a tout perdu et souffle pauvre nègre muy yoo xam ne ci tubaab la ko bindoon ca at mooma David Diop daal di bàyyi njàng mam doon jàng faj dem nag di gëstu lépp lu jëm ci am mbind ak i taalif ak téere mu dem Grenoble ak Montpellier bindu fa waaye bu amee naqar rek ci wérgu yaramam day bind ngir naqar boobu wàcc ci jamono jooja sax ci la bindee woon taalif bu mag boobu mu jagleel ndeyam te muy ama mère te kenn du ko fàtte waaye ci la bindee woon it taalif bu mag boobu mu jagle woon Afrique te taalif boobu defe naa ne ñëpp jàng nañ ko ci la wax naan Afrique sama Afrique bi nga xam ne jàmbaar yu mag ya ca dënd ya ca lañ ne woon di xeex taalif boobu ñëpp duñ ko fàtte muy Afrique mon Afrique Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales ci tubaab taalif boobu defe naa ne ñëpp ñu doomi Afrique ca jàpp ne war nañoo jog xeex ngir tubaab bi jóge fi David Diop kon ci foofu nga xam ne mooy revue boobu di présence africaine daana liir ay téere ba pare di ci wax gis-gisam ci téere yooyu ku mel ne Ferdinand Oyono wala Mongo Betty ñoom sax ku gëstu gis ne bind na ci ñoom fukki fan ak juróom-ñeent nag ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru satunbar ci atum 1956 congrès bu mag ba dajale woon bindkat yi ak artistes yi ñuul yi te ñu defoon ko ca Paris ca Sorbonne te ki ko jiite woon di Alioune jóob di gorom foofa la ñu taxawalee association bii di société africaine de culture nga xam ne bokk na ci ñi taxawaloon premier festival mondial des arts nègres ginnaaw bi mu amee licence ci lii ñuy wax littérature di ay taalifaku mbind moo am nag beneen diplôme mu lijaasa bu mag boo xam ne dafa jël xam-xamam dëkkmal ko ci mbindum nit ku ñuul David Diop ca la ñibbi si Dakar 1957 ànd ak jabaram aki doomam kon David Diop jàngalekat la woon ca lycée Delafosse lu jar a xam David Diop jàngalekat ca lycée Delafosse 1958 bi nga xamee ne Guinée daf ne day jël indépendance am génn ci empire colonialu France bokk na ci borom xam-xam yu Afrique yu mag yi demoon wuy ji loola moo indi David Diop nekkoon jàngalekat ñaari at ca école normalu Kindia di république gu Guinée. waaye gis ngeen bi ut di jeex ci 1960 bi août di jeex ci 1960 ginnaaw bi mu demee Paris noppalu ji fa ay fan ca la nag ne day ñibbi si moom ak jabaram Yvette ngir fekk si seen doom yi ci dakaar keroog ba muy jël avion guddi la. ma ngi ko jël bisub dibéer ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août avion ba Air France ko moomoon waaye bi avion bi agsi ci fajar gi di ter cala dugg ci ay niir akub taw wala ngelaw loo xam ne moo daaneel avion booba ca biir géej gi fii ci wetu dakaar ginnaaw nag bi nu xoolee ne juróom fukk ak juróomi nit ña ca biir ñëpp dee nañ ca lañ dugg nag di wër ñan lañ mën a gis seeni néew néew David Diop ginnaaw biñ ko wëree ña ngi ko gis génnee ko te moom ña ngi ko suul fii ci Bel Air ci cimetière catholique fàttaliku leen ne baayam dafa teel a dee ndeyam di camerounaise catholique yar ko loola nag ba mu amee mbooloom gëstukat yi mu doon àndal am naqar naqar woowu ñu màndargal ko ci ab téere téere booba nag am mbind la mbind mooma di ñoom tàgge buñ ko tàggee ak joytu gun ko joytu ana luñ ci bind ñu ngi ko bind ci tubaab ma tekk ko ci wolof ñi ngi jooy ku nu bokkal ndey bokk ak moom baay ñi ngi jooy taalifkat ñi ngi jooy nit koo xam ne dafa xëy rek dem mais mooy tuuru na keroog ba muy dee ñi ngi jooy koo xam ne matagut ñi ngi jooy ka jóge woon Kinja waaye ba muy ñëw dafa indaale woon ay sërica ca gaalam ya ma ngi ca defoon téere bu njëkk bi nga xam ne ca lañ waroon jàngale mbindum doomu Afrique ci daara yi waaye mi ngi indi woon taalif yum ñu bëggoon a jagleel indi fent nettali bu mu ñu bëggoon a jagleel loola lépp kenn dootu ko gis ak leneen ndax géej gi nee na ko tandiix moom mi nga xam ne daa gumba lii la ay xaritam yi nekkoon ci société africaine de culture bindoon keroog ba ñu tiimee néewam ta koy suul ana luñ mën a jàpp mooy tey ku namm David Diop xamal ne ba mu génnee àdduna ñu tekki ay at 1973 keroog présence africaine génne nañ lépp lu mu defoon ci ay taalif tuddee ko coup de pilon muy Euh, kuur gi li muy yuuxu kuur googu nga xam ne moom la ñuy dëbbee li muy yuuxu loola nag taalifam yëpp ca lañ ko def loola ca lañ jàpp di ko ko fàttalikoo kon David Diop képp kuy jàngale ci bul ne xamul Afrique doomi Afrique la ju màggee Afrique donte am na diir boo xam ne France la ko jàngalee kii lañ doon waxtaanee tey di David Diop bindukat bu mag bi xam sa tay xam sa démb sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Goethe Institut